et di wax mes chers collègues le peuple sénégalais nous regarde et que ce qui se passe actuellement est très très très grave pourquoi c'est très grave mooy un parti comme le parti démocratique sénégalais qui a exercé vingt six ans mu def ko ci opposition douze ans mu def ko ci pouvoir douze ans mu defaat ko ci li nga xam ne moo nekk opposition dirigé par un homme un homme exceptionnel le président Abdoulaye Wade am des hommes d'État yu exercer État xam lan mooy État xam lan mooy réew à l'image de notre président groupe parlementaire monsieur Mamadou ci Thiam ñu yaakaar ni parti boobu dina jël ay accusations aussi graves très graves di ko teg ci ay ñoo xam ne ce sont pas n'importe qui des juges constitutionnels des juges constitutionnels ñu bëggee a jàppee loolu yaakaar ni loolu dil la wala leneen la c'est méconnaître le Parti démocratique sénégalais c'est méconnaître trajectoire am c'est méconnaître les hommes yi nga xam ne ñoom ñoo ko incarne et je tiens à féliciter notre président du groupe parlementaire monsieur de Mamadou Lamine Thiam et l'ensemble des députés yi nga xam ne ñoom ñoo porté li nga xam ne moo jëm ci li xam ne moo jëm ci kii bi mooy l'article premier de notre constitution lan la wax dafa ne la République du Sénégal assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction de race de sexe L'article trois wax ne la souveraineté nationale appartient au peuple sénégalais qui l'exerce par ses représentants ou par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté. Et que bi mbir mi amee on a entendu beaucoup de choses même des professeurs d'université même des gens yoo xam ne dañoo nekk ci plateau yi wax des choses yoo xam ni c'est loin de la réalité. On nous parle de des pouvoirs mais la séparation des pouvoirs comme le pouvoir arrête le pouvoir et que bi ñuy wax la séparation des pouvoirs c'est pour éviter l'arbitraire c'est pour éviter ñenn ji di làqatu ci ginnaaw pouvoir yi nga xam ne yoon may na leen ko pour def naka sudul noonu pourquoi cette résolution pourquoi cette commission d'enquête parlementaire parce que dañoo nekk ci assemblée nationale l'article 48 du règlement intérieur wax ne député yi mën nañ mettre en place commission d'enquête parlementaire pour saytu ju uti ay informations sur des faits précis ak des éléments yoo xam ne dañu koy teg mais l'article de la constitution l'article 93 parle de juger en matière pénale wala déglu ay magistrat fii nekkuñu en matière judiciaire ici c'est le parlement moo tax je ne comprends de quel droit se permet le conseil constitutionnel et l'union des magistrats di bind communiqué di attaquer des députés et monsieur le président de l'Assemblée nationale vous êtes interpellé les députés sont interpellés parce que ce que le Conseil constitutionnel a écrit c'est très grave dire que les auteurs ñi nga xam ne ñoom ñoo def acte bi ñoom Conseil constitutionnel loolu du leete loo xam ne dafay nekk sans conséquence donc ils ont menacé les députés et le bureau de l'Assemblée nationale doit répondre à ces accusations et que li nga xam ni moom lay ñëwaat mooy le PDS a souffert dans la dignité Karim a souffert dans la dignité pendant douze ans persécuté nañu def nañu lu nekk Karim toujours yoonu yoonu voie légale lay jaar pour sa battre quatorze décisions de justice sur le plan international taxaw wax ne am bëgguma si bëgguma dara damaa bëgg ñu setal ma waa bëgg ñu wan ma yoon bi nga xam ne fa la ñuy jaar ba ma mën a bokkaat ci biir élection yi parce que dara mënu ma ko woon a tere bokk donc tey bu ñu toogee tey ba ñu am ni soupçon de corruption je pèse bien mes mots soupçon de corruption am na ci ay magistrats yoo xam ni du ñu ay magistrats sax parce qu'ils sont à la conseil constitutionnel c'est une cour politique c'est une cour politique mu ne am na ci ñoo xam ne jàpp nañ leen di dañ leen ak ger mais ci ger googu lañ lañ ko leeral certains parlent de l'article premier mais l'article premier l'élimination de Karim Wade c'est dans le processus électoral la neuf candidats yoo xam ne dañoo jël seen i seen i kele ne mënuñu ko xool c'est le processus électoral ñi nga xam ne dañoo am problème parrainage c'est le processus électoral et que boo jëlee lépp les considérants l'exposé des motifs lépp ci processus électoral bi la et ce qui montre que le PDS est un grand parti parce que am na ñoo xam ne lan lañ door xaar ñu ne corruption lii ñu saisir la justice pour faire arrêter le processus pour faire arrêter la commission d'enquête parlementaire mais nous avons été très intelligents doon leen xaar ci loolu moo tax ñu wër leen ndomba jaari ji feneen teg le processus électoral pour ñu leeral ko pour wane que ni li nga xam ne moom lañ def may sa Wade nekk loo xam ni lu jaar yoon la et tey li may wax mooy may sa Wade dañu koo tooñ le droit n'a pas été